bi nga xam ne euh, ñu ngi ko waxtaanee yéen euh, depuis lu yàgg bis bu nekk euh, wala week bu nekk lundi jëmee ko si juróom-ñaari waxtu ba ba juróom-ñetti waxtu balaa news bi. léegi nag xam naa ne ñu bëri ñi nga xam ne xamuñ ma woon léegi nii euh, duñ ma mun a xam because of masque bi ñi nga xam ne xamoon nañ ma xëj na léegi ñu koy commencé fàtte suñ suñ fees yi euh, waaye masque bi moom by force rek ñu sol ko lu tax by force ñu solko mooy ne covid baa ngi fi ba léegi nii euh, waxtaan nañ ci covid ba tàyyi moo tax léegi nii dama bugg a waxtaane yeneen waaye ba tey du du du du di dina baax ñu fàttali nit yi ne covid bi ba tey mu ngi fi te suñ moytuwut dina ñëwaati Euh, garaaw naka la garaawee woon wala gën koo garaaw parce que gis nañ ko ci yeneen dëkk yu mag yi ne ñoom demoon nañ ba contrôle ko ba nga xam ne Covid bi kenn euh, tiital tiitalatut kenn waaye nag am nañ lu ñoo ooyee second wave mooy beneen gandax boo xam ne ñëw na léegi nii mu gën a garaaw beneen bi nga xam ne léegi nii euh, ay junni. ñoo dee dee ci bés bi ci Amérique soo demee Angleterre ay téeméeri nit ñoo dee dee bés bu nekk ci Covid bi seen lopitaan yaa ngee commencé léegi di bëri waati nit yu fa nekk seen ñu ngi fees léegi nii ba nga xam ne yenn yi duñ am sax fu ñoo dugal nit euh, yooyu noonu yëpp ay problème la yoo xam ne yàlla musalagum nañu si euh, tanda ñun ñoo mën a def rek ba continuer yàlla di ñu musal ci loolu noonu mooy ñetti mbir rek la ñetti mbir yu yomba yomba benn mbir bi mooy ne euh, nañ moytu booloo yu bëri mbooloo yu bëri yi nañ continuer di ko moytu euh, nañ moytu euh, euh, nañ nañ dee raxas suñ loxo yi mooy ñaareelu mbir bi ñetteeli mbir bi mooy nañuy kova nañuy nañuy iir suñ boppa ah parce que iir boobu noonu ñu bëri dañ dee foog ne yow soo soo aaree sa boppa su ma duggee ci kër léegi nii maa ngi sol masque nga gis nit ki ma waaye yow su mil sa masque bi xanaa yow da nga foog ne ñun dañ laa jox Covid du noonu lu lu xew mooy ne man maa ngi protect gars yi parce que man léegi nii su ma solee masque ki nga xam ne moo jàkkaarloo man man maa ko gën a protect man nu maa protecté suma boppa euh, moom laay gën a aar man nu maa aaree suma boppa ku sol mask keneen ngay aar nekkul ne yow sa boppa ngay gina aar di nga aar sa boppa de waaye koy gën a aar mooy keneen ki nga xam ne moo jàkkaarloog yow so ñette yi nii nañ ko continuer tey nag luñ bugg a waxtaanee mooy euh, fagaru balaa nga wala wala nu ñoo wax mooy euh, xoddeeku balaa ngaa lakkale mooy ne léegi nii da nga war a jóg balaa ngaa feebar pour dem uti ndimbal ñun ñëpp luñ miin mooy ne balaa ngaa gisi docteur dafa fekk nga feebar dafa fekk yaa ngi am ay mandarga yoo xam ne géttéen na la nga xam ne soo demee ci docteur bi lu mu laa njëkk a laajte mooy lu tax nga ñëw lan moo la géttéen ba nga ñëw lan moo la tawat ah, ñun nag lu ñoo wax léegi nii mooy ne jot na nit yi xelaat ne yenn yi war ngaa dem lopitaan te fekk tawatuloo te fekk dara jotut la ah, nu ma ko gën a mën a waxee rek mooy nit yi nga xam ne am nañ moto duñ dee xaar bi dara jot moto bi ñu door a dem ci ci ci mécanique bi bala ngaa tukki tukki bugg sori di nga dem ñu make sure sa sa eh, nga nga def nga def nga def essence bu doy sa moto bi nga make ndox bi doy na ci sa moto bi nga dem si mécanique bi ñu seet sa break yi ndax mu ngee dox ñu defal la diw ci biir moto bi ñu préparé yooyu noonu yëpp euh, wala sax yow su nekkee sax tukkiwuloo mais bi ñetti weer yu nekk ñeneenti weer yu nekk di nga def loolu noonu su nekkee nag mun nañ koo defal suñ moto yi naka suñ yaram yi Euh, war nañ ko mun a defal suñu yaram itam war ngaa mun a jog bés te dara jotut la nga jóg ne maa ngi dem seeti euh, dem ci lopitaan bi pour ñu seetal ma suma yaram naka def lu tax loolu noonu am maanaa mooy ne am na feebar yu bëri yoo xam ne si commencement yam yow doo yëg dara sa yaram su demee nag ba nga commencé yëg sa yaram fekk yéen ay tardé nga euh, pour ñu dimbali la am na feebar yu bëri kom feebari cancer balaa ngaa yëg fekk sori na sori boo xam ne di nga tardé te waxoon naa ko fii si sumay programme ne am na euh, benn feebar mooy prostate cancer boo xam ne euh, ci bitim réew bés bu nekk dañ dee jis ñi nga xam ne dañ ko dee am bés bu nekk ñu faj leen parce que dañ dee teel a ñëw fii nii bés bu nekk dinaa gis koo xam ne mu ngi am prostate cancer waaye suma liggéey fii nii bu ma commencé specialise ba léegi nii mooy 2008 ba léegi nii ñaari nit rek laa opéré ñi nga xam ne time yi opéré la ñëw nañ time yi opéré ñu si des ñëpp balaa ñoo ñëw dafa fekk ne kenn mënatul si ñoom kenn mënatul leen a faj dañoo jéem a contrôle rek loolu nag lu tax ñu ko mën a def rek mooy comme lu ñoo wax nii mooy lu ñoo ooyee wellness clinique nga jóg rek dem ne man dama bugg a seet suma boppa euh, tey nag ñu ngi euh, weeru si ñi nga xam ne ñu ngi am juróom fukki at góor yi nga xam ne am na juróom fukki at euh, tegu parce que ku nekk am na yuñ laa defal yoo xam ne euh, su nekkee góor nga am na test yuñ laa defal su nekkee jigéen nga am na test yuñ laa defal su nekkee xale nga am na test yuñ laa defal waaye ñi nga xam ne dañ am juróom fukki at di dem yan façon yi mbir yoo xam ne daf leen ne mun a daal ci at yooyu noonu euh, mooy high blood bii nii ku nekk la mun a daal waaye ci at yooyu la day gën a bëree nga gis euh, diabetes bi ci la bokk euh, feebari prostate bi nga xam ne dañ ko dee wax ci góor ci boor yooyu la day ñëw nga gis góor gi commencé am problème mi saw prostate cancer cancer bi nga xam ne daf dee dal prostate bi si boppam ci boor yooyu noonu la day commencé am te moom feebar yi nii yëpp ñuy wax nii mun naa nekk sa yaram lu yàggaa yàgga te doo yëg dara te soo bëggoon a xaar nag ba nga yëg dara comme lu mel ni jabet bii ni nga xaar bi nga am gaañu-gaañu boo xam ne tànk bi yàqu na nga door a dem ñu door a xam ne am nga jabet kon yow léet nga fekk time boobu noonu lu ñu laa wax rek mooy ne dañoo génnee tànk bi te loolu noonu fekk weesu na loo xam ne euh, soo ko soo teeloon a dem xëj na ñu xam ko ba nga xam ne yow di nga mun a aar loolu noonu soo moo tax euh, képp koo xam ne euh, dem na ba am juróom fukki at soo feebarul sax wax dëgg yàlla dund nga juróom fukki at yoo xam ne dara jotut la lu lu garaaw nga dem si lopitaan ne ah man de xaaral dama bugg a seet suma boppa daal ñu seetal ma suñ la seetalee dinañ la seetal sa sukkur dinañ la seetal sa high blood pressure bi dinañ la seetal ehm, cancer yi nga xam ne daf dee di jot nit yi si si si si at noonu nga xam ne bépp buñ si gis rek fekk teel nañ koo gis nekkagut time boo xam ne sori na ci sa biir yaram so loolu moo tax ñu jog tey waxtaan boobu moo tax ñu jóg tey so dinaa bàyyi Mariama mu nuyu mbokk yi euh, mu dugg ci topic bi euh, suñ paree nag dinañ ubbi line yi képp koo xam ne am na loo xam ne bëgg na ko see laajte mu laajte ko ñu continuer waxtaan bi Mariama. abaraka docteur assalamualeykum mbaɗe gam jon kuɗaɗum kalla jata kende akka cakalen kam min to lokumo a tene luma mbal um, kon toon uh, allah jibir ñama uh, jibir ñimala um, woto komin ɗo toya koñamin doron ma um, ñin uh, watowol min be tambi tan naka ca ñatirin tan courangol ley ka commiye coronavirus nin ko coronavirus ɗon mbayra mu courant ne timiya lon ka janjanta duniya kono le a courant oy haɗama ɗin jamale ni yota aɗon ay mumol man tora woto ŋaje ko akumma ah, ah, ya batere fuɗuŋa kaca bari ŋaje ko fanan ate doromanke kuranti mi ye lon ka ɓe moolu batandi kan kuraŋol siyatal mi ye lon ko ɓe moolu batandi kan walati nan ko batuŋa kaca ɗu fana naati pour ka banko ɗiŋol londirndi doroŋ la comme nin ko um, ah, coronavirus um, ko ñantol mini sita a ñiŋ kuraŋo la wota kumata la pour ŋa ŋa wo fo bulandi hani kabi doroŋ pour ninga taran be kuwo kula hani kabi ngang hakilo bulan ngang hakilo tuje bayri uh, ntatala fo sain be tembe damin to akurango um, a sembo talata banko kam bakele bari hani kabi doron dokta ya falle nyamen um, bantala banko kanga ada ya jele min kakeje woto wol minil ya lonko tata fo ya ko kurango nyin sai nga sembo be banta jele danaka a yaji ko katake uh, silang a wuli tala ko taka adunga adu, banko dol bije a nata nyamin kan um, sain uh, jawyata uh, foloti woto pour ka mol hakkilo bulandi katu ko malla fi woy futa woy kenna banko kan ala tintu um, woman tara jang bare hani kabidoron pour kal hakkilo bulandi ko ninga ko bulukuwo doro mool be sakata nka bulukuwo fa ñamin o bulukuwo la ka safunol ta ka jiyo ta nka bulo dawo da ninga tara mowo soto doron ñin jelol minel yalon koy hand sanitizer nga walta nga kafo tala bake bake bake hani kabi nin ko mool e kafo buda doron mbate ku kilingol la al nga kata nga kafo tala kafo be siyari ndamin doron kana ta nga nyuku nyuku nyo kanje uh, hani kabi doron anin ñim masko nkal yentol jala birin corona ko masita lo wole atinna ko mol salon ka kumaya batale ninga tara ye masko dum comme docteur ya fanya min itata moya aya foy ko masko bondi yamra kon dolye corona soto warambe corona didere amanka wati itami ye masko dum ikte ke tolle tanke tol min ma dum tol buke tele tanka oto nga kata bake nimbe dawa da suwa kono lombang nga kata surtout ke bal ma fo nga kata nga masko dum nga, eh, nga kafotala adum kambulol ku jannimbe ko ko kala oto wo kumaya batale pour hada ah, role mene fo molle pour ngam fonga tanka a corona kuranga a pour akana muruna banko kan a ngabe bantala bankol kan nyame a abe mol fa kan ne sain lopitanol fa telephone dula dol bije silata ko um, america banko kay silata ko comme kurandol fo ngaminil kana ita dula sota da pour ke e maril jaraje waton kana nyina corona la be kere ne hani kabi um, asembo mantala um, bake wato na kacha anko anyabe tilina uh, kacha lamia lonko um, ning atara mo tata lapitan kumang kala walam tubabul ka fai wellness clinic walam ning atara emulite fangoy kuumeɗimi i jaato o fembankale tamata fo docteur o yayi kay ko lafitale kisi kisuto kaña yen wiste kaji ɓe fo kuɓennale niyatina niyaje gañin kaca natinaga kummaya batale bayɗi kuraga ɗoɓe je asi tarano haramani walale aɗum mandara kuma a taman sero man finti ibala an fo ni tata l'hôpital ye jibero ke wotoy salon wara ɗoɓe je hannaɓe fintila jannite bitala l'hôpital o katarla a ñanta ka tiñaro min wo tiñaro keɓalo kono a jam fata wota kummayatale bi commin gañin kaca natinan aɗum wa tala uh, ah, komin molle la kebal alfanal minen leyalon ko sanjo sita fo sanji tallulu kata santo la um, ako ninga tara fana amanke ko addanta wol doron la musol fana sitan wala tenyeng sanjoto diningol fana sitan wala pour ke jibe doron ako matal pour kata docteur oya um, hannin kute la yafo ako coming ne mol jibe akamta ko moto bari ndila jamal kubuka kela moto la moto dulabu katinya bari niyaje wato wati yeta pour um, um, um, yata e moto jibe ninga tara tulo le ka faling ninga tara jio le nyanta ka yalon a ani tata fosilo kan a ay pani nati tano woto minil kam muto jibe a juna yata a wato min ne nyanta kajbe ko min kadi sawo kawi sawa ay misalo di uh, woto wasifa bo kayno walla bade ndinga tare moto tuje tamba bode ndila doron lunkili na bitale fosilo kan doron moto e fa adunga mamalan kan nyina foten wala tinna kumma yata nin kumon kela yata ako ko min mol minil yalon ko ye sanjita lulu soto kata niya jibe jama ke bayanin jata kende bukata nyola bake wake wala tinna nin wudi tan tata nga docteur ol uh, eh, jibe dron ben fonga tan kala no nyin kuran al minil yalon ke kaje ko sukur kuran am um, at least isa jeno balo kono ninga tara abela yele selol a ah, aninga coming coming ke yato am um, ah, ka fa to ka fa prostrate wala mi adina ka jala muto kala yandi kele bake a kompiti ngate am um, kumasi am um, fa consult aketa consultanoti wala ngala doko ate mo fula doron ne je min ya lon koy wulite fonwale tata yo operation o sote nyanta ka soto wato minna bari mol tol mini be kana kan wol be ka kelo ko aka tarle ko kurango jamfati bala fo sa hen ibuka ijara no bari poko e mako e doron ka borol digla anin ka kuwal ke min ya ka se mako e pulu se fongo soto no woto ngaje ka kumaya batale puru bi nganyin kacha bari kebal siyata banko kan adun hani kebal ninga tara ɓe natalo kala kawol be keye pour isaje ko doron ninga tara ku tela fanan alhamdulillah ye yamari ɓe min kala bar ninga tara ku fanan bela isaje koye sey ma koye kana ke ibulu kuti mi yalon ka be man torala wata ya fo ñamin doron bina laynol yelalale ñato am pour momoy commandiro soto anen ñinin karo isen commandi yan ñinin ka docteur Thank you very much, Mariama. I think uh, you have raised all the issues that we have raised. Um, uh, wellness clinic is really very important. Uh, I know one of the reasons that uh, we are not um, so interested in it is uh, the uh, the issue of um, um ability to do it in terms of the financial ability to do it. uh, because um, healthcare can be very expensive um, uh, sometimes. But I've heard many people say um, if you feel healthcare is uh, expensive, wait until you are sick. Then you will know how expensive it is, uh, because sickness is more expensive than than than than healthcare. Uh, so really, prevention um, is very important. Um, if you look, for instance, at prostate cancer, for instance, which we say happens in this age of uh, 50 and beyond, um, you find out that those people who have it have it for many years before it starts showing them problems. So you have it for five years. During that five years, it's a time for you, if you were going to wellness clinic, to discover it in time. Then it is not causing you any problem. It is remaining in the prostate. then you wait until it has spread to your bones, causing you so much pain in your bones, and your bones can just fracture like that without you doing anything. You wait until it has gone to your lungs, you cannot breathe anymore properly. Some people have it going into their brains um, uh, and, and causing them to die instantly. Having something done about it earlier is definitely much better than waiting until you are sick about it. And therefore, it's very important uh, that even you can start saving for that to say that okay I am preparing myself so that when I am 50 I am going to do such and such and such a test as we said we are not just talking about the 50 year olds mm -hmm. Uh, the, the, women also have their own part. We're going to bring that program um, next time. And the children also have their own part. But what I will do is that I'll translate this in Wolof, allow you translate in Mandinka, and we will open the lines on uh, so that anybody wants to be part of the program uh, while we continue the discussions. mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii mooy yëg nañ ne benn si mbir yi nga tax xam ne moo tax nit yi duñ dee jóg dem ci lopitaan suñ feebarut mooy man-man bi ak am-am parce dem lopitaan rek euh, dina dina miin ne war nga am loo téye sa loxo so doon dem si lopitaan yi nguur gi sax di nga am loo war a téye sa loxo sakatuma so doon dem si yeneen lopitaan yoo xam ne ñoom ñooy gën a faral di def test yi nii nga xam ne moom la ñoo wax parce que lopitaan yi nguur euh, ñu feebar doy leen na leen soxla parce que loolu noonu rek sax ñoom mënuñ koo toppatoo bu baax so sooy jóg ba di dem di seeti sa bopp te feebaruloo euh, lu ci ëpp yëpp ci yeneen lopitaan yi ngay dem te pour jóg dem si yooyu noonu euh, dina dina dina soxla loo xam ne moom nga cee def te xam nañ ne loolu moo tax ñu bëri duñ ci dee dem waaye man foog naa ne képp ku am lu tuuti war ngaa jéem benn yoon sax nga dem cegi gis sa bopp balaa ngaa feebar xëj na loolu dina la mun a aaral euh, lu bëree bëri lu mel ni prostate cancer wax nañ ko fii nii mun naa nekkaa yow juróomi at juróom-benni at juróom-ñaari at di yaaxa ci biir nanka nanka mm-hmm. te yow yëguloo ci dara soo demee nag ba commencé yëg ko fekka ni euh, sori na te doo ci mënati dara so nu ñoo def rek mooy dinaa bàyyi euh, Mariama wax loolu noonu suñ mbokki man di kay den dinañ euh, ubbi line yi 5050505 képp koo xam ne bugg naa dugg ci programme bi mu dugg ci programme bi képp koo xam ne am na laajte mu laajte ñu mën a continuer waxtaan bi Mariama mbaɗi ngol hani kabiɗo ron kaca continue um, wala mo gafo ko an kacañaɓe tilinna kuulel lammiyalon ko am um, kurantela ko kumema yeta docteur o leya pour yejiɓe um, docteur ka fanya mende ron kame ni yaje moja mabuka um, wuli puru kata ala uh, pitanu to ninga tara kuman kila wala mi baji be kan dron soto anin ko do min be jole je uh, wala tina jama jama mol buka song ko wuli kata ninga tara kuman kila ka je ka man ka kuti mi alon ka kuma yatal um, adunga ko ning atare ila fitaka lonko um, ku namanta ɗin jata kende a bela dron katala bitano to ko koɗo ɗo bandi pour ka um, pour ya docteur oje ako ise batu foye sasa ninga tare sasata otole ka lon ko yara fan sasa nyen Ah, bala balo namantara sahayarin wala ko ɗo ka dina nin atara kutela itata lopitano to pour niyaji ɓe um, mansa kundala lopitano i fanan bakata kan uh, ah, bara amon ka ko kuwo mi yalon ko iso se kiskisirol ɓe keyno nin atara kutela a kuwo ɓe a machine ol bulle wala dow courant o bulle um, ah, woto niyaje dorong i sudata walla wol jama jama foyta ah, ah, um, private clinical to mineli alon koy sa wol kiskisirol keyeno inin docteur o se sino ina e wati jango soto ina se kaca afanan se yamara adunga se jibe ka, ka kema koye pour ke tanka woto um, akumaya abata lefa a fa nyaming a puru ninga tarakute nanga kata ninga kodindin soto uh, hanna be kala sango kono sinya kali neti dorong yo kodindin wata yeta yake fon kunto kela jata kende at, uh, tembe da jibe adin kisikiru ke jata kende uh, uh eba e jato kono isaje ninga tarakube soto le dorong okay. ise ya mar puru ka fo Mariama it a caller on hello uh, hello yes sir hello ñu ngi laa dégg waaleykum wa rahmatullah hello yes. na def Badara. jaama rek sant yàlla. waaw sa programme bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. programme bi neex na ma nga ko toog rek time. alhamdulilah alhamdulilah. E, bi nga so. yow man daal am problème e, gastrique. gastrique waaw. waaw so gastrique bi trop. Mm-hmm. émission bi sonn na ma waaw. so def la dëgg la kon dinaa la wax dinaa la wax tuuti si gastrique nga gën ko understand. Uh, den nga seet nax ngaa mun a gën a dimbalee sa boppa soo demee ci lopitaan yi ñu defal la yu ñu la war a defal gastrique ñu bëri lu tax ñi ko dee wax mooy uh, biir bu métti wala sa sa si ron xol bi muy métti di tànga Ehm, soo am na lekka yoo xam ne soo ko lekkee mu gën a mit mu gën koo def mu métti ehm, soo xiifee bu baax a baax mu gën koo def mu métti loolu la ñu bëri dee ooyee gastrique moom lu mu miin eh, mooy ne lu ci ëpp yëpp eh, acide bi ci biir bi moo bëri eh, yenn yi nga am foofu noonu lu ñoo ooyee ulcer mooy gaañu gaañu boo xam ne mu ngi ci biir bi wala njëlbeeni butit bi Euh, loolu noonu nag am na yeneen yu bëri yoo xam ne yeneen feebar yu bari yoo xam ne dina dee wane màndarga yooyu noonu soo soo demee bañ ba nga am mandarga yooyu noonu war nañ laa seetaati ñu am ay test yoo xam ne moom la ñoo def pour mun a seet test bu ci gën a gën mooy test bi nga xam ne dafa am caméra boo xam ne dañ koo dugal sa biir gémmiñ bi mu seet ci biir yëpp euh, seet ba ci biir bi fan la nekka seet ndax yaa ngi am olsa ndax amuloo ulcer ndax yaa ngi am foofu lu ñoo ooyee gastritis ndax amuloo gastritis duodenitis mooy ay ay euh, mbir yoo xam ne daf dee xew euh, ci biir bi foofu noonu di joxe mandarga yooyu noonu euh, loolu test boobu noonu baax na trop pour ñu def ko parce que soo ko defee di nga xam mbir mi fan la jógee su nekkee ne jógeewut ci yooyu noonu nga jéem a seet yeneen yoo xam ne mun na see jógee am na ñeena ñoo xam ne lu tax ñuy am mandarga yooyu noonu mooy xeer boobu boo xam ne mu ngi nekk ci lu ñoo ooyee wextaan bi am na ñoo xam ne lu ñoo ooyee pancréas bi moo moo moo am problème am na ñoo xam ne tamit euh, yaxi gannaaw yi sax moo am problème ñuy yëg yooyu noonu am na ñoo xam ne xool bi moo am problème waaye yooyu noonu yëpp moo tax feebar soo ko amee euh, nga dem rek ci pharmacie ñu ne la yaa ngi am gastrique wala nga dem si nit rek mu waxtaanaa yow rek ne yaa ngi am gastrique doyut am na test yoo xam ne war nañ koo def bam ñu oor ne loolu la euh, nu ñoo def mooy dinaa bàyyi Mariama dafa mel ni dañ am beneen koola dinañ jël kooku ñu bàyyi Mariama translate li balaa ñoo ansa kooku salaamaaleykum waaleykum salaam. yow Mbading. Mba. waaleykum salaam. waaleykum salaam. mbaɗa kontonɗo abaraka yo allah programme o kummata baake abaraka mi defele fo koyna eh, kantoro banko mhm. abaraka la eh, mbaɗa naɗonin programme o kummata baake le abaraka ko tammo olla hakkilo yilani jatta kenda sowna a baraka a baraka merci docteur mba continue baak eh, mba continue abe joola alama euh, alama melañin ɗo kola baga baga amin amin kono to ɗiyamen babula alama hamsa alama lafa amin amin amin inchallah allah kontan dolem trop ok albarka albarka ala barkam mbaɗigol commin um, ɓe uh, kacakono ñamin kumandirlami e kumandiroke a tela ñinin ka lomu minti walla commin a tey um, kulogol soto um, um, uh, mi alon ka tata lopitani jamal to um, ka fay ko gastrique walla jusukunto janoti wara jusukunto dimo um, a dimo a dula jamal to sa docteur ko mɓe min foli domandin doron um, nin ko gastrique walla courante mi ya lon ko asit tara konole kono wara asa tarano nuwola kumasi um, woto nin atara wakketa doron nin atara momo ya lon ko um, ye domoroke doobije aka minil ka tinna wokkake doron walla ninga tara um, ye domoroke um, kono dimo soto waray famata domoro la mi ya lon ko asid o min ɓe kono kono asa wuli um, ka asa wuli kasalenna kasa uh, kankono toto um, kata ka um, juso kunto uh, dimo soto ako wota doobije fanan ikkaje ko kunan kunan boto ako doobije aka bero soto la ninga tara yewo soto doron wo fanan ikkaje ko um, mari kamiro ka e gastric soto bayri la taman sey rol be keliyatale aka doobije uh, wol be mu kula ti miya lon ko nin a mol ya soto anin yin um, a ah, um, gastric ala ah, dimu um, isutiyata nyolale ako woto nin a uh, momo wo soto doron kami nga a fanya min nyinom taman seroti miya lon ko a abari kolal be dun nalate asiyata um, woto nin atara fana yewo soto doro yakata ye makoy ko komin keji la soto komi yeta pharmacie to mom pewo fenke yeji be doron bari la taman sero fota doron iko koy gastric le soto woto hani ka wi dorong e kule ke mi yalon ko ka fay endoscopy am um, pour ka jibe ni ngata wo ke woto le salon ko fo gastric lon waro fo kuran dolam mhm. bari ni ngata wala ndoro yakata ngata one on the caller yes. so let programme bi trop ñu koy jàngee man daal lu ma bëggoon kom bi jigéen yi daal ngeen ngeen seeli saka jigéen yi wériti wériti dee am hypertension. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw bëggoon naa daal ngeen ngeen see waxaat daal. incha allah. waaw su ngeen si mënee dooliwaat programme bi daal dina ko nekk trop. parce que baax na baax na. Mm. boobu tam su neexee yàlla dinañ ci dugga week bii nii di ñëw su neexee yàlla jigéen yi la ñoo dugga. Euh, seet lu tax jigéen war a dem balaa moo feebar sax mu dem lopitaan euh, yi ñoo mën a gis si moom ba ko dimbale waaw euh, bi we can translate that in Mandinka ako komi a tela ñinin karo wala ma laftan na kaca bunda ga lafa musol ka surtout musol mene da lon koy harjeta aɗum ela yelo kasiya eka yele selo soto ako wata lafitale um, ga wadundi kaca kono bari wom kukuma balete aɗa yalon ko amansi a kaca mesi woto nin ata ala sonta doro lokun koten na kaca ñaɓe telina musol lella aɗum ɓe wo kaca alala docteur you see mariama the, first person who asked the question a about the gastritis because a uh, when they take some certain foods. And it is so common that many people take it as normal mm. and they don't take it very seriously. Uh, the, important thing for is, this wellness clinic. Um, it seems before I go into that, we have a caller on the line. Hello? Yes? Waalaikum salaam. Doctor. jërëjëf. seen programme bi neex dama leen bëggoon a laajte man su ma am su ma jëlee biir bi am boori Edmond. waaw. suma presse bi daf dee éeg. dëgg la. waaye afta loolu rek su ma amee doom rek daf dee wàcc. dafa wàcc dëgg la. waaw dëgg la depuis su ma foosoon mu ne léegi am na eight years yooyu. Mhm. waaw yëpp dem naa bi am ñetti doom léegi. macha allah waaye suma laas doom bi bu ma ko amee nii. Mhm. dama dem bi am éegoon na de waaye bu ma demee bi am three months. Mhm. ba xale bi am three months dafa jógaat. dafa jógaat yes. waaw loolu eh, loolu la waaye dem naa garab na ba am garab. macha allah very good very good very good waaye fan suma yaram bi ma dem lopitaan test nañ ma ñu ne bisuñ dara. ok very good. foog naa yooyu noonu yëpp lu baax la first thing mooy loo wax ne boo jëlee biir da dee di am high blood pressure loolu noonu lu lu yu dañ ko dee am. Euh, mooy lu ñoo ooyee pregnancy onset high blood pressure euh, hypertension mooy ñi nga xam ne dañ jël biir euh, seen blood pressure yi éeg suñ demee ba biir bi dem seen blood pressure yi wàcca ñooñu lu ñu war a def mooy suñ demee ba amuñ biir war nañ continuer di check seen blood pressure bi regularly mm. because ñoom dafa mel ni mun nañu am high blood pressure kanam suñ demee ba am biir bi la dee feeñ waaye yéena suñ demee ba gën a mag tuuti dina feeñ te amuñ biir Eh, te high blood pressure ni ñu ko dee waxee mbir la moo xam ne feeg blood pressure baa ngi éeg eh, mu nge mu ngee yàq sa biir yaram bi mm. kon yow def nga lu baax mooy ne boo demee ba biir mu ñëw nga gis ne boo demee ba am doom ba mu am 3 months nga demaate ñu ne la sa blood pressure baa ngi éeg nga commencé jël garab euh, boobu noonu bu ko bàyyi euh, nga continuer di gis lopitaan ñu laa gis su nekkee ne dem nañ ba la ne bàyyil garab bi tamit nga continuer di seet sa blood pressure bi soo seetee ne mu ngi éeg rek nga delluwaati lopitaan euh, ñu cegal la ko I think that's a very important thing to translate maybe we can translate that because uh, before I go to what I was about mbaɗigol min mi yekkole e kumandiro ke doron ala ñinin karo mu minnet minti wala mo ako natitata fa har jeeta aka amma yele selo soto bar natata fa har jeeta aka yelo ka selele um, docteur ya yamar ko uh, ka kata lopitan le aɗo natata je ka borol diyala le um, aya yamar ko womo kuulete mi alon ko musol dolbi je nin attara walam tubabol ka pregnancy um, induced hypertension walam Uh, a yele solomi ye a lon ko kunole ka tinna a uh, ka sele woto jama jama ndiŋa tara al uh, wosoto doroŋ a ka kata ye ta lo bitano to um, woto i sema koy ye borol di la aduŋ ndiŋa tara foyi tata foyi wuluta doroŋ yelo e e ka jile woto a kummayata le ndiŋa tara i wuluta ye continue ka ta lo bitano to docteurol ka continue ka jibe um, niŋ wonte a ko ndiŋa tara ima a jiita ñato domandiŋ i se um, courant sotono le ye a a lafi tan hanni wuluta e continuer doron pour e kata e ka doctorol je e kema oto mi kumandiro ka te kata lafi tan on to la kukendole ti a momoɓe ñin e eh, kuusi fa soto kan doron mbeyamarla ye i think uh, it is also very important that we tell our viewers mm-hmm. uh, that uh, now with the age of technology, there are some things we can even do ourselves. everybody owns a telephone yes. uh, and people tend to own very expensive telephones mm -hmm. you know mm-hmm. they own the iphones and the high end uh, samsungs and so forth which are thousands of dollars mm -hmm. um, and everybody you see no matter what their job is or so mm -hmm. you see mm-hmm. them with very nice big big telephones um, and the blood pressure machine costs less than a telephone yeah. most of those telephones, they cost more than a blood pressure machine. And many people will find it difficult to, invest on that mm-hmm. rather than investing on a telephone. This is what we were talking about. Um, it is not that the money is not there at all. Mm-hmm. It is where the priorities are. Um, therefore, if you had a blood pressure machine at hospital. Mm-hmm. Then, if you have pre blood pressure and then every two weeks, you have it at home, you check it for yourself at home, because it is not even as complicated as storing so many numbers in your telephone, mm -hmm. but people know the numbers that they store. Uh, so you can keep that blood pressure machine with you and you do your blood pressure yourself and you know the numbers that are not right so once you start getting that number that is not right okay. then you go and visit the hospital yeah. and then they can check it for you and they can start treatment for you i think that would be a very good investment exactly. in many ways eh, mbokk yi lu ma doon wax Mariama léegi nii rek mooy ki nga xam ne dafa kool léegi nii di wax mbiri high blood bi time bi nga xam ne mu ngi am biir eh, ñu ne ko nag yow after sa biir bi war nga di check dem di checki sa blood pressure bi loolu lu miin mooy mu dem lopitaan di checki blood pressure waaye lu ñu doon wax léegi nii rek mooy ne machine yi nga xam ne moo dee check blood pressure euh, bëri nañ léegi ci dëkk bi technologie bu ñu nekk léegi am na euh, ba nga xam ne koo gis léegi nii ci ci ci dëkk bi xale bu ndaw boo gis mu ngi téye téléphone bu seer mm-hmm. téléphone boo xam ne lu mu bon ban ay junni dalasi la moo mm-hmm. cost euh, nga gis ne blood pressure machine pour mu cagal la sa blood pressure bi xëj na sax du cost mm-hmm. lu téléphone yooyu cost waaye soo laajte woon ñaata nit ñoo am blood pressure machine seen kër <laughs> doo di nga di nga di nga xam ne waaye ñaata nit ñoo am téléphone si kër bi mm-hmm. di nga gis ne kër boo duga dina am juróomi nit juróom-ñaari nit ñu am téléphone waaye kër boo dugga benn blood pressure machine sax xam naa doo ko fa fekka lu tax mooy nit yi euh, doyadil dañ doyadil seen seen seen wér yaram dafa mel ni dañ doyadil seen wér-gu-yaram te loolu noonu lu am important la pour nit yi mm-hmm. fàttaliku loolu noonu kër bu nekk war naa am benn blood pressure machine soo demee ba am biir ba biir bi jee sa blood pressure bi wàcca yow nga commencé nag di ceeg sa blood pressure bi semaine bu nekk nga check ko benn yoon bés boo gisee ne nag mu ngi éeg ñu jox la numéro yi te numéro yi tamit jafeñut noonu 140 mm-hmm. 90 rek la te koo si gis léegi nii ñu nekk ñi ñi jàngut sax soo leen laajtoon uh, Mariama lanay téléphone number dinañ la ko dinañ la ko te loolu ñaata numbers dafa nekk foog naa seven numbers la ñoo deal with bii nii four numbers rek la <laughs> yaa ngay gis so uh, basically lu ñoo mun a def la ndax ndax pare nañ koo def waa koo def mooy wax ji euh, let us take this caller then we can get you to translate that Mariama hello. yes salaam. si um, programme bi laa nekk di la ñu ngi ñu si kuréel yaa ngi ngi ci biir ñu ngi laa dégg ñëpp a laa dégg léegi Gambie yëpp a laa dégg. Ah, ok man affaire yi living bi gastrique bi laa bëgg xam. Um, sumane ka sille ka ni andude so hmm. hmm. hmm. baax na baax na dinañ dinañ la tontu léegi nii um, um, you can just translate first and then we can go back to that question mbaɗigol docteur yamar kende baladi jang aɗum yamar umi alon ka kummaya batale um, commin a yafo ñamin doron ko banko kan itata dawoɗa dinding kafuke anin kebal be ah a yemmomojo doron ñin téléphone da jaw jawole kata revol iphone ol ɓe faringmol bulu samsung ol ɓe faringmol bulu minen liya lon ko ni ye dañinin kabi itatal fof eh, eh, eh, gambia dalasi ko ɗo wuli jama jama jama bare a kon ndiga tara ɗum ta korda kono eɓe machine o jala mi ya lon koye ka yele selo juubi ala a sike kilin kilin wo machine o mi ya lon aka yele selo jiibe nomoli a dafago buka si a futa nka ñin téléphone ol mine muta wota kummaya batale a commin ɓe ñin téléphone o sankan ñamin a kumatale hani moɗoɓe je yaje alam ma kan mo futa pala sot place o ɗo to bari téléphone o babul mi yalon ka téléphone o da jawyata bakele a ah, woto ninga taran sewo keno um, ah, na, na, na, na to woto mañana ka kori kata ka ñim machine sang uh, ah, minel yalon koye ɓe mako ya fo ñamin doron ako momo korda korda ñanta ka wototole i kaje kon muso mi yalon ko natata fa harjeta yelo seleta a wuluta a isaje no lokum wo lokum i sefango mako yeno le ya a a to mi yalon ka mañana ka fotowoto isa borel lopitanoto ise mako ise borol dila lano bari a ŋa tara mbuka wo ke doroŋ wo laatinna am jama jama i ka kuuraŋo soto janni ka kalamta wo hatara a ye kutuyito woto korda wo korda ñanta ka katale ye saŋ um, hani a maŋ ke musol doroŋ miŋ ye a loŋ ko la yelol kasale keebaal fanaŋ bi aniŋ dindiŋol a ka wol bee mutale uh, woto ŋa kata doroŋ ñiŋ masinu a daa maŋ ŋa soto suwol kono pour n kam faŋol maakoy doroŋ kam faŋol tanka am um, Thank you very much, Mariama. I think this uh, uh, man uh, came back to the gastritis, and we have explained what gastritis is all about um, and what are the differential diagnosis, what are the other things that yeah. could mimic yeah. um, gastritis. And there are so many of them. We have just mentioned a few of them. Um, I don't want to scare people by telling them that even cancer of the stomach mm -hmm. can be one of the things that can mimic that. And that is why whenever you have a symptom, um, don't be satisfied by just telling somebody and that person tells you this is the diagnosis it is never enough I mean no matter how many years I have been in medicine now there is no way somebody can come to me and say doctor I have uh, heartburn uh, when I eat it is not going down very quickly and when I eat such things it and I say yeah it's gastritis and I just treat you for gastritis without doing any test I don't have that knowledge I have to do some tests. I have to put a telescope inside and see what is going on inside there to be really sure it is that. I might try to treat you initially, say, okay, let us try this medication and see whether you're better. But if you're not better, then we need to do the tests in the future. Um, mbokk yi um, uh, bu ñu doon waxtaan nii rek am na ko koolaati laajte about gastritis bi waaye lu ma ko bëgg a wax rek mooy ne uh, soo ne gastritis um, mbir la moo xam ne. Euh, mandargaam dafa bokkaa yeneen yu bëree bëree bëri euh, man lu ma yàgga yàgga ci médecine tey lu ma sori sori si si jàngi docteur yaa tey kenn mënut a ñëw si man ne ma man suma xol bi daf dee lakka su ma lekkee nangam day def nangam euh, ma ne la yow gastritis nga am mu jeex si noonu rek mun naa am nag ma ne la léegi nañ try ñu treat ñu jox la garab bi seet ndax dina tane waaye nag su tanewut by force ma am ay test yoo xam ne moom laay def pour mun a xam ndax digg-digg gastritis la ndax leneen la parce que am na yeneen yoo xam ne xëj na sax moo gën a graaw gastritis te dina def loolu noonu so kenn bum bum doylu loolu noonu. Mm-hmm. kenn mu doylu dem ci docteur jaar docteur ja ne ne yow daal da am gastritis rek jeexal ci mm-hmm. noonu euh, mu faj la loolu noonu rek déedéet docteur ja war naa def ay test yoo xam ne mm-hmm. su ko defut nga xam ne ah kii de moom pare pareegut pareegut de na dafaa lii nii rek waaw moo tax ñuy def programme bi nii pour nit yi mun a xam mbir yi nga xam ne soo demee sax ba dem uti faju di nga xam ndax kii lu maa defal doy na ndax doyut parce que loolu noonu yëpp lu ama am importance la mariama mbaɗigol kumen ka sutende doronga mosoto meyalon ka fannañinin ka ro ñatilinta gastritis lella

al a ɗingata re tata docteur ol ya yo a keye aɗugi ma be mari salon ko ñiye min keñe ase ka ma be keñe wara dasatale wata kummaya batale pour ñin uh, programme o mol ka jibe anin e kalamoye docteur Thank you, Mariama. The, last thing I want to talk about today, because it was raised uh, because of the questions that mm-hmm. came in. Today, what we're talking about is wellness clinic, to go in before anything happens to you and why it is important. And if we've explained why it is important, the main important thing for people to remember is that diseases can be in your body without you knowing for a very long time. And by the time you know it because you're feeling it, it may be too late. Mm -hmm. But if you go and be tested regularly, then you, it may be discovered at an earlier stage when it, when it can be cured. And I have given the example uh, from the prostate. Uh, we have a caller. Let's just go there before we uh, continue. Hello. hello caller okay he's gone so basically um, uh, that is that, that that that is it is that it is important to go before you are ill now the other thing that I want to add to that is this issue about the blood pressure machine it really pains me mm -hmm. to see that if you go to every house there's a telephone it seems the caller is back so let us get this one as the last caller before we conclude yeah oh. yes hello. hello. Uh, hello yes yes ñu ngi laa dégg Hello? Mbemwela. Hello. Ah, mko? Mhm. Aha. Mbala programa la mweka, nko tuna mwela bari mbuka bino watu. Bi woy dun tale, mbe mweka. Ante pana komi sasa dole senke nti sole ma. Mhm. Ah, sizo ni komi nani jira kala kila mbatani la sometimes. Aha. e camera mhm. sen majina ka bondi puso kono kana fon kawto mulunke bare comme en tata lopitano en tata farafeñe en tata villageio bare e ɓorol ɗi nankiye min kawal tun kam fende ka ɓorol min bare hani o waldu a katara fa e bonna feren abuka taranna mumeke bare yaje waldore ka e murnan kan kotenke donc foen fenke bate iyo abaraka docteur ɓe lakkumo jaabi la ngamoy ngamoy so so so basically um, heart heart problems uh, that she's having pain, she's having some difficulty breathing, she goes to hospital and yeah. then they give her medicine, it gets better, yeah. but then comes back, comes back again. Yes. Um, uh, this, is, this is the importance uh, of what we are talking about, mm -hmm. is to complete whatever you need to do to know what is wrong. Patients should not be satisfied by going to a health facility and the doctor says, okay, you give all your complaints, I have this, I have that, I have that, and the doctor sees you and say, okay, I'm going to give you this medicine. It's not enough. You should ask the doctor, why are you giving me these medicines? What is the diagnosis? What is the, what is the problem? you know then he can give you what your problem is then you know then you will understand because clearly she doesn't understand what yeah. her problem is mm -hmm. and I don't understand what her problem is yeah. because I don't know yeah. I mean there are so many things that can cause chest pain there are so, so many things that can cause difficulty in breathing um, they have given her medicines she doesn't know what those medicines were targeting so what we are uh, teaching people is to understand what they what is being done it is it is a two-way thing mm -hmm. it's never a one-way thing between the doctor and the patient. I think we are running out of time. I'll translate this in Wolof. We'll get that done. Then we will say our last uh, words. Um, uh, mbokk yi kii lum laajte lu ama am solo la mooy ne daf daan dem uh, dina bi di métti su dina bi méttee mu dem lopitaan am na garab yoo xam ne am tamit jafe-jafe ci nokki su demee lopitaan dinañ ko dee jox garab yoo xam ne yenn yi affaire si dina dem mu del siwaate ma ne Mariama nag léegi nii loolu noonu nekkut lu war a am. lu war a am mooy ne soo demee ci lopitaan nga wax euh, docteur bi ne nangama nangama nangam moom a gétteen man su docteur bi téyee penam rek ne la waa léegi bindal naa la garab sàngam wala mu def test yi moo def tam mu ne la waa bindal naa la garab sàngam war na laa wax lan moo la jot mu tax lu tax muy laa jox garab yooyu noonu su la ko waxut yow war nga koo laajte ne ko waa docteur lan nga gis suma yaram bi di ma jox garab bii nii mm-hmm. waaye jël garab bi rek dem Euh, du du du solve problème bi parce que yow kon yow understand loo la na tax man lu ma lu ma foog ne moom la war a demee mooy ne diggante docteur bi ak ak ak ak malade bi ñaari ñaari yoon la ñaari yoon yëpp lañ war a jël docteur bi war naa déglu malaat bi mu wax ko feebaram yëpp docteur bi tam war naa wax malaat bi hmm. lan la gis ci yaramam su defee tes itam test bii nangam ak nangam la wane garab bii maa la ko jox lii tax lii tax may laa jox garab bii ni mm-hmm. garab bi lii ak lii ak lii la war a indil foog naa ne loolu noonu lu ama important la time baa ngee dem nag Mariama dinaa la may nga translate loolu noonu uh, foog naa ne we have only two minutes then you wrap up programme bi mari hol wato banta moto min folo doron mi kumandir labango ke um, wala ma ko dobi jati asiso kadimil aɗum ni joko ko leyabol la katatala bitan jamalle to aɗum je boori jamalle diyal naya min ay fisaya fo wati jang namita e murnankoteke oto docteur kamin fayde ɗon hani kabi ate min batela hani kabi ate ma wolon aɗum tol min fana ɓe siri jang akan tol min fana ñinin ka hani kabi nta lonnano min mbala ota kummatale komin kañin kacamin keeɓi pour mollita lopitano to ka kisi kisirol soto oto ni tata to eko docteur o ñin kukarle benna ay borol dila ite ma ñinin kay kanyim borol min dinna pour minom a yemine janna am kuran to a muna mun kuran ne benna ite ma wo ñinin kay te ta doro ye borol min o ta kam to ko doro ni te tata ni te borol min na fese yata ni ngata kuran ne mi yalon ka jow yata ite mari ta wala nanu abe murun nan e kanne o kum ma yata le nin tata doctor wol ya fana ni ka kacha ngi ñinin ka min benna mun ke ko ku eh, eh, eh, side kilinam anyanta kake kara fulol beɗo to kara kilinten kara fulol beɗo ite ñinin karo ke docteur o ya dila isaje ko min atara kuketila doro ite sa fahamno docteur o mun atinna kañin dila aɗin courant o min bela pour ise fango ma koyno oton ɓe kaca janna janna wato o min ɓe mbulo a bantanan ne bafula ala ala baraka ala la moyni mala afo wote kata mbe kachasi ndila doctor la pura program oyin soron doctor thank you very much mariama the last words uh, let us not uh, face covering, social distancing, very important still. And uh, the final, the summary of whatever we have talked about today is that you should understand what your doctor tells you. You should know yourself what your diagnosis is rather than just the doctor treating you one way uh, mbokk yi uh, buñ fàtte uh, raxas loxo nañ moytu euh, mbooloo euh, nañuy cover suñ fees yi pour ñu mun a xeex feebar bii nii euh, suñ demee ci docteur yi tamit nañ fàttaleku ne docteur bi nekkut ne moom moo xam yëpp ñaari boor la yéen da ngeen war waxtaan mbir mi lum laa defal tam war na la ko wax bem la bem la doy sëkk ne lii la war a def ngeen continuer loolu naa def ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ci déglu bi Mariama just the last words um, bali amarla minna hani ka bidoron corona mu kurane timmi alon ka be kerin alkana nyina an kana taraka fo kono kan bulol ku kan nungol mura ni nyim masko la wata kuma ya batale hani ka bin kan tuje adun hani ka bidoron nin tata doctor oli an alon kon se nyinin ka bari karakilin ka nyoma koy pour kan fanga ma ala baraka Allah la mo nyima la folo kun koten Thank you very much, dear uh, next week, Jirigenje.